nañ dem voté ji ku nekk nga nekk sa xol nga dem voté ala kulli alim kii di diriger réew bi suñu borom tànn na ko ba pare te man damaa am yàqiit ne réew mu nekk ka koy diriger day méngoog réew ma doo ji ay pataas di récolter ay pombiteer réew mi di ko yor day méngoog dëkk bi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax bu nu bëggee nag ñëpp lu baax dëkk bi lay defaraat ba pare ki ko war a yor moom du se du doon malien du doon ivoirien du doon guinéen sénégalais lay doon di koy sénégalais lay yor dañ koy dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax damay profité ndax dégg naa ci euh, ci euh, bi benn euh, wax wax joo xamante ne man maanaam xaw na maa kii lool mag la nag waaye maa ngi doon dégg sax muy insister xale yi pour ñu taal seen i carte d'identité yi demee noonu xaw ma ba xam suñu ko si débat bi xaw waaye yooyu moom dem naa du wax loo xamante ni kilifa war na ko wax ndax réew mi moom buñ ko climatisé wut war nañu koo taal rawatina làkk say doom te bitim réew ñëw di taal fi nga xam ne suñu doomam fi nekk defe naa loolu moom nekkul wax ju yanu maanaam waaw dëkk bi moom defe naa passé nañ débat yooyu ay taal yi di kaar rek taal lakk yi rek waa ñuy sànnante ay kon loolu tamit ñu bàyyi ci sa bopp bu baax a baax a baax waaw ku deve-se esperar devolver o resultado.